nettali nañ ne maslamata doomu Abdou Malik mosoon naa jiite armée jullit yi ci jamono boo xam ne jullit yi ñoo ngi wër dëkk bu mag bu ñu wax Rome bëgg a dugg ci biir dëkk bi mu jafe leen lool ndax dëkk bi dafa am miir bu rëy ak bunt bu dëgër ngir dugg ci dëkk bi lu jafe woon la ci jullit yi loolu taxoon na soldaaru jullit yi amoon nañu ay bis wër dëkk boobu mënuñoo fexe ba dugg ci biir waa Rome di leen sànni ay safara ak ay doj loolu nag nekkoon coono bu metti ci kaw jullit yi waaye taxul woon jullit yi deltu ginnaaw benn yoon ñoom seen bëgg-bëgg mooy dugg ci biir dëkk boobu ba mën koo fàttuwu dugal fa lislaam waaye jamono bu nekk rek waa Rome dañ leen tiim ëpp leen doole di leen sànni ay doj ak ay safara taxoon lu bari ci jullit yi doon faatu ci benn guddi kenn ci jullit yi dal dinay ñëw andi xalaat bu yéeme daal di yolleeku nànk kenn gisu ko ci ay guddi mu daal di jël ab pikkam dem ba ci miiru waaroom bi daal koy koy dajji na ko nànk daal di koy dóor daal dóor miir bi na ko nank fexe ba def ci ab bën bën boo xam ne dana fa mën a jaar dugg fa te kenn yëgu ko noonu nag waa ji daal di delluwaat ci guddi gi kenn gisu ko bi ñu xëyee nag jullit yi daal di ñëwaat wër dëkk bi comme niñ ko baaxoo defee waa jooju nga xam ne moo bënnoon miir bi ci guddi gi dal di daw dugg ci biir bën bën bi gaawantu rek ubbi bunt bi nga xam ne mooy buntu frontière dëkk bi noonu rek julli yëpp daw ak doole dugg ci biir dëkk bi xeex ak waa Room song leen xeex moom xeex bu tàng jiir ab diir bu gàtt rek waa Room commencé dégg julliti di sàbbaal di wax allahu akbar muy wane màndarga ne julliti gañe nañ xare bi noonu la julliti gañe waa Room daal di dugal ci dëkk boobu lislaam bi xare bi jeexee nag masla ma mi nga xam ne moo nekkoon jiitu jullit yi nekkoon jiitu arma bi daal di woote ca kaw ne ana kan ci yéen moo bënnoon miir bi def ko ab bënn bënn daal di koy tijji na ñëw taxaw fii ñu neexal ko bi waxee loolu ci jullit yi kenn wuyu ko bi waxee ana kan moo defoon jëf jooju daal bënn miir bi dugg ci biir moom laay waxal na ñëw ñu neexal ko bi waxee kenn ñëwul ci ëllëg sa mu defaat ko daal di wootewaat ca kaw bi mu waxee moom tamit kenn ñëwul ci ñetteelu fan ba nag maslama bi mu wootee kenn ñëwul mu daldi di waat ne maa ngi waat ne ki nga xam ne moo bënnoon miir bi dugg ci biir jëf ju baax jooju mu def waxtu wu ñëwee moo xam guddi moo xam bëccëg danaa ko neexal waaye bi guddi jotee maslama nekk ci biir xaymaam am benn waaye bu mën fawu dal di muur kanam gi ba kenn xàmmewu ko mu daw dal di yolleeku ñëw ci xayma maslama dal di nuyoo bi mu nuyooyee ma fay ko ne ko ndax yow yaay ki bënnoon bënn bi gi ma doon laajte wàcc daal di koy tontu ne ko ki bënnoon bënn googu de dafa ñëw indaale ñett sart soo ko nangulee ñett sart yooyu mu wax la ndax moom la wala du moom ma ne ko waxal sart yi mooy lan mu ne ko bu ma laaj nu ma tudd teyit bul muri sama kanam gi teyit bu ma jox neexal ma ne ko loolu amul benn jafe-jafe nangul naa la ko waa ji ne ko man maa bënnoon bënn gi li tax nag ma ñëw waat gi nga waat laa doon bañ mu neen ndax kilifa nga sa waat googu laa doon bañ mu neen ndax yow yaay sunu kilifa ndax yaa jiite sunu armée bi moo tax ma ñëw ngir waat gi nga waatoon mën a am waaye nag man maa bënnoon bënn gi noonu nag waa ji daal di dawaat ci guddi gi nànk kenn yëgu ko foofa nag maslama daal di tudd yàlla daal dina jëf ji day bu sellul mën na maa waat ne benn jëf dootul sàllate ci kaw suuf ci noonu nag masla ma saa boo xamee ne moo ngi julli ba toll ci sujjóot dafay ñaan sunu boroom ne ko yow sunu borom maa ngi lay ñaan ëllëg yowal xiyaam su may dekki yàlla naa ànd ak waa ji nga xam ne moo bënnoon miir bi ëllëg yowmal xiyaam su may dekki yàlla naa ànd ak waa ji nga xam ne moo bënnoon miir bi te bëggul kenn ko xam kon yéen samay mbokk boroom xam bu mag dafa wax ne nit ku nekk war naa fexe ba nëbb jëf joo xam ne jëf ju baax la ju nëbb joo xam ne kenn xamu ko diggante moom ak boromam rek ñoo ko xam ngir jëf jooju mën koo xettali bis bi nga xam ne jëf yaa ngi feeñ ku nekk war naa nëbb jëf joo xam ne def na ko ci lu baax waaye dina koy nëbb ba kenn du ko xam digganteem ak boromam képp la yem ngir mu mën koo xettali ëllëg bu jëf yu baax yi di feeñ ngir mu mën koo xettali ëllëg bu jëf yi di feeñ ku nekk war naa nëbbu benn jëf joo xam ne diggantam ak boroomam la ngir mu mën koo xettali ëllëg bu jëf yi di feeñ ku nekk war naa nëbb jëf ju baax joo xam ne digganteem ak boroomam la kenn du ko xam ngir mu mën koo xettali ëllëg bu jëf yi di feeñ yàlla kat li jaam ñiy jëf dara rëyut ci moom li jaam yi jëf ci lu baax dara rëyut ci moom waaye li jaam jëf ci lu ñaaw dara tuutiwul ci moom yàlla dafa wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci hadiisu si ne ko ki njëkk ci yéen ba ci ki mujj ci yéen suñu dajaloo woon di ma def jëf ju ñaaw di ma moy comme ki nga xam ne moo dàq moy ci kaw suuf du yàqu ci sama nguur gi dara comme ni nga xamee ne puso bu diggee ci géej du fa yàq dara waaye ki njëkk ci yéen ba ci ki mujj ci yéen tàmbalee ko ci maam aadama ba ci ki nga xam ne bu juddoo kenn dootu juddaat ginnaawam àdduna tukki bu ñu dajale woon ñoom ñëpp di def jëf jëf ji gën a baax ci ki nga xam ne moo daq jëf-jëf ju baax ci kaw suuf du yokk ci sama nguur gi dara comme ni nga xamee ne puso bu duggee ci géej du fa yokk dara yàlla daldi ne man maa yor koddaay gi sàkku leen ci man ma woddu leen man maa yor lekk sàkku leen ci man ma leel leen di ngeen may tooñ guddi ak bëccëg waaye man maay jégale bàkkaar yi kon jégalu leen ma ma jégal leen kon yàlla mooy ki nga xam ne moom rek moo màgg te moo matali ci lépp kon lépp lu waaye di def ci lu baax soxlawul ngistal bu ko wan nit ñi ndax nit ñi mënuñoo fay ndax nit ñi am ñu kàttan am ñu doole waaye wan ko yàlla moom rek moo mën a fay te moo am kàttan te moo am doole dana la téyel jëf ju baax jooju sa digganteeg moom ba bu ëllëgee jëf jooju mën na laa sowe suul bépp jëf ju ñaaw joomu sa def ndax doomu aadama yi kat seeni jëf bu leen yàlla toppee du baax ci ñoom waaye yërmande yàlla mooy li nga xam ne moom la bépp jaam di sàkku ëllëg soo demee wuy ji boroomam kon yàlla moom mooy ki nga xam ne moom rek moo mën a seddal ab jëf ndax moom rek mooy ki nga xam ne jëf ci moom la mën a sellee waaye mënta sellee ci keneen mbokk yi lenn rek doy na misaal histoire bu siiw mooy ñetti waxambaane yi nga xam ne dañoo demoon ba ca àll ba ba ñu demee ci àll ba mel ni ñuy tukki yàlla def ngelaw ak xiin gu mag dab leen bi mu leen dabee ñu daal di daw ñoom ñett ñooñu dugg ci benn xuntu xuntu woowu benn montagne la boo xam ne dafa am am pax ci biir ba ñu dawee dugg foofu ngir wattandiku ngelaw li mu bañ leen a lor waaye am na doj bu mag a mag boo xam ne doj bu rëy la doj bi daal di ñëw ba ci xunt wi daal fatt xunt wi nga xam ne ñoom fitna dab na leen ci biir ndax ngelaw li arrêté na bëgg nañoo génn waaye doj woowu fatt na xunt wi ba mënuñoo génn ñetti waxambaane yooyu jaaxle lool amuñu benn pexe noonu kenn ci ñoom ku am xel daal di wax ne fii de kenn mënuñu fee génne ku yàlla du kenn du benn tur bu ñu mën woo bu ñu mën a génne fii ku dul yàlla te yàlla itam ku rafet la te bëgg rafet kon nañu fexe ku ne ci ñun seede jëf yoo xam ne jëf ju rafet la def na ko ngir yàlla te bu nga koy def yàlla rek a taxoon su boobaa yàlla mën nañoo yërëm génne daj bi ndax yàlla rek moo mën a génne daj wi bañ mën a génn mucc ci noonu ku nekk ci ñoom ñett daal di seere jëf joo xam ne fàttaliku nga ne mës nga koo def muy jëf ju baax sa diggante ak sa borom ku wax rek daj bi daal di àndatu ba ki mujjee wax ci ñoom bi mu waxee rek daj bi daal di génn daal di puusu ba nga xam ne ñoom danañ mën a génn noonu la ñoom ñett muccee te nag mbokk yi yàlla moom mooy ki nga xam ne moom rek moo mën a musal ab jàmm ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam musoon naa wax ak benn xale bu ñuy wax Ibnu Omar ba muy wax ak moom daf ko wax mbir yu yéeme ndax daf ne ko bu aw xeetu lëmb dajaloo woon ci misaal xeet wu sant njaay comme man dajaloo ni ñuy bari bari bari moom ñëpp ku ne di def pexe ngir lor la ku ne di def pexe ngir lor la ngir yàqal la yàlla nee na kenn ci ñoom dala mën a yàqal lu dul sama coobare la noonu itam moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di wax xale boobu di Ibnu Omar ne ko noonu itam aw xeet bu ñu dajaloo woon ci misaal xeet wu sant Jóob ñoom ñëpp ñu dajaloo ngir jariñ la ngir dimbale la ngir yëkkati la kenn ci ñoom mënul laa yëkkati lu dul sama coobare la ndax coobare yàlla rek moo mën a xettali ab jaam coobare yàlla rek moo mën a dab ab jaam coobare yàlla rek moo mën a dimbale ab jàmm kon lu waay di def ci jëf na nga ko seereel yàlla ndax jëf yépp ci yàlla la ñuy rafetee waaye jëf yépp ci yàlla la ñuy jëf yépp ci yàlla lañ koy nangoo